asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ak di ñu seetaan fa ñu mën a nekk ñi ngi am mbégte mu rëy di leen nuyu fii ci biir jumaay tuuba ci turu daairatu muxaddamatul xidma ci njiitul sëriñ Afiya Buso daairatu muxaddamatul xidma nag ab daaira la boo xam ne mi ngi sosu ci atum 1994 ci weeru mars ci ndigalul Cheikh Saalihu Mbakke mu am ay ndigal yoo xam ne moom la ko sëriñ bi jox am fu mu tàmbalee ba agsi fii mu ta agsi fii mu tàmbalee mooy bale jumaa ji ak lal tapp yi ak tàqale sappe yi ak tàqale góor ñi ak jigéen ñi foofu la tàmbalee woon ñu dox tuuti sëriñ bi joxe ñu digal ñuy amal bayaan yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci jumaa ji mooy xutba yi nga xam ne ñu ngi koy firi ci wolof ñu di ko taxawee sëriñ bi itam dolli ñu ci julli yi di ñu di ko taxawee mu dem ba mu yàgg mu dolliwaat ci pénc mi wax ne am na yu mu fi déggoon yoo xam ne bëgg na mu jóge fi yooyu bokkoon na ca ñi fiy nekk di yalwaan am na nu meloon ñun ñëpp xamoon nañ ko njaay mi nga xam ne moo nekk ci biir penc mi sëriñ Saalihu wax na nañ ñëpp dem ca marché ya am na itam ñu fi nekkoon daan weccee xaalis tudde woon nañ ko sax weccatu jumaa ji wala weccetu tubaa yooyu yëpp mu ne na fi jóg am na ñu fi nekkoon daan géew itam di euh, diiwaan ñooñu itam mu wax ne nañu fi jóg ak yu demee noonu rawatina ñi nga xam ne dañ daan jaay jaay moo xam ne day màcc jëm ci luy xaw a nuru ak njabar yooyu yëpp suñu borom tabaraka wa taala ci barkeb Serigne Touba dimbali ñu ba ndigal yooyu yëpp ñu taxawee ko bi ñu demee ba 2005 ndigal yi nga xam ne moom la ñu Serigne Saliou mu ñu jox mooy Euh, dog yi nga xam ne ñu koy def ci weeru koor ak waxtaan yi nga xam ne ñu koy def ci biir jumaa ji ci weeru koor ca jataay boobee ca la joxe woon ndigal nag ne sareet yi nga xam ne itam dañuy jaar ci pénc mi ak oto yi nga xam ne dañuy sëf sobe muy oto yi vidange yooyu la Serigne Saliou joxe woon ci ay ndigal bi Cheikh Mouhamadul Amin dikkee mu dëgëral yooyu gën a dooleel daayira bi gën koo taxawu ci fànn gu nekk itam Cheikh Sidil Muxtaar itam kazalika xam ngeen ne moom ci jëmmi boppam sax lu jiitu daayira bi di sosu yii ma lim bari na ci yoo xam ne moom moo daan taxawu tere yooyu bi daayira bi juddoo nag ci 1994 mu gën leen a jàppale gën leen a taxawu di leen soññi waxtu wu nekk ba ni mu jiitee yoon wi itam mu taxawu leen taxawaay bu rafet Cheikh Mouhamadul Mountakha mi itam sëriñ Saalihu boole woon ñu ak moom mu nekk suñu kilifa di ñu taxawu ci yu bari dox diggante ak moom ci lu baree bare ba euh, ni daayira bi egsee fii dara mësu ko cee ump kon loolu mooy daayiratu muxaddamatul xidma ci tënk yeneen yi ci dolliku nag yu bari la waaye ndax mën nañ cee boole ni bi comité d'organisation màggal Touba soso daayira muxaddamatul xidma membre la ci biir comité d'organisation màggal Touba moo amee dalal kilifay diine yi nga xam ne ñooy jóge ci réew mi di ñëw ci màggal gi ay xew-xew yi nga xam ne ñi nga am ci dëkk bi itam bari na ci yoo xam ne sëriñ bi dana leen ci woo di leen ci jox ay ndigal ñu di ko taxawee ak yeneen yoo xam ne sëñ bi lay soob ci coobare boppam rek mu sant leen ko ñu defale ko ko ni nga xam ne noonu la leen ko sante loolu yooyu yenn la ci taxawaay yi nga xam ne moom la daayira Muxaddamatul Xidma di taxawe li taxal nag li tax nag euh, ngeen ñëw fi tey te mooy euh, taxawaay bii nga xam ne yeesalaat nañ ko ci fan yi ñu nekk te mooy yokk cat gi ak kaaraanga gi ci barab bi nga xam ne mooy jumaa ji ak penc mi ndigal la lu bàyyi bàyyikoo ci cheikh Mouhamadul Mountakha mu wax ne nañu yeesalaat taxawaay yi euh, defaraat barab bi ba mu gën a méngoo ak li nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane woon te loolu lépp ndigal loolu lépp tey jii nekk ci loxoom euh, mu digalaat ñu taxawaay boobu ñu gën koo yaatal ndax fi jamono toll ak ni pénc mi mel te muy loo xam ne teg na ci bëtam moom mu bëgg nag yokk taxawaay boobu ndax dafa mel ne euh, am na yoo xam ne mu ngi romandaat di ñëwaat ndànk-ndànk te suñ ko teelu te mën naa doxaat ba delluwaat fa mu nekkoon soññee boobu nag moo indi opération bii nga xam ne amal nañ ko ci jamono yi ñu toll loolu nag am na lu ma jur li jur mooy euh, am na lu mat téeméeri nit ak juróom ñeen fukk ak juróom benn yoo xam ne euh, téye nañu leen fii ci fii bokkul nag waxuma rek ñi nga xam ne amante nañu ñoom maanaam woo leen ñu ñëw ci biir jumaa ji ñu wax ak ñoom loolu moom lim bu baree bare bari la waaye ñi nga xam ne téye nañ leen ngir ay yëf loolu toll na ci téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn 196 personnes yoo xam ne dafa séddalikoo ci yii may bëgg lim am na ci ñoo xam ne dañoo am jafe-jafey kër ba génn seen kër dem di wëreelu ba yàlla dogal ñu for leen fii am na fi ñoo xam ne dañoo am ay jafe-jafe seen diggante ak seen wayjur ak ñàkk a juboo am seen diggante ba ñu génn def li ñuy tuddee fàq ñooñu itam am na ci am na ci ñoo xam ne xëy na du seen wayjur lañ amal jafe-jafe waaye seeni wayjur ci seen diggante ñoo am jafe-jafe ba ñoom mënatuñu koo dékku ñu génn seeni kër dem am na fi ay dongo yu daara yoo xam ne dañoo dawee ci seeni daara am na itam ñu jóge ci ñu dawee ci yeneeni dëkk yeneeni réew ñëw ci biir dëkk bi te xamuñu fi kenn ñu for leen fi am na fi ñoo xam ne dañoo ñëw di def lu nuru ak njabaraan walla ñuy tuddoo ñu ñu doonul di wane ne doomi diw lañu wala sëtub diw lañu te loola wérul am na fi ñoo xam ne dañ doon tuxal alali jàmbur maanaam dañ doon sàcc am na ci ñoo xam ne itam dañu doon màndi walla ñuy jëfandikoo luy màndal wala ñu yor ko am na fi ñoo xam ne itam dañ doon taxawaalu rek mel na ñoo dëkkul fenn am na it ñoo xam ne eh, yu mel ne nu jaxasoo googu ñu doon wax ci bénj bi dañ ko fee indi woon muy indi fi embouteillage bu xaw a bari ñooñu bokk na ca. def gi ñu ko defoon lu mel ni ab garage oto yi di taxaw di woote euh, coxeur yi ak chauffeur yi jaxasoo fi bay egsi sax di woote ci kaw ci bunti jumaa ji am na ci itam ñoo xam ne ay góor ak jigéen lañ ak way laa ko yoo xam ne dañ daan nekk ci penc mi di kar nit ñi am na ci ñoo xam ne dañuy seyaare ba génn ngir ñu dëggaat seen oto sax jafe-jafe lay doon wala ñu egsi waaye ngir ñu wàcc seen oto dugg ci biir jumaa ji sax jafe-jafe lay doon ndax dañ leen di kar di leen sonal coono bu metti te loolu am na lu ñu ci sëriñ Saalihu Mbàkke waxoon bi nga xamante ne bi njëkkoon na ko tere ci jumaa ji te ñi fi nekkoon ñu ci bari daw dem ci biir këram wala ci buntu këram bii jàkkaarloo ko sëñ Daam fii la ñu toog waxtu 3 heures ci bëccëg ci weeru koor mu yónnee ay ndaw wooluñu ñu daw fekk ko mu toog ci buntu néeg sëñ Modou Badar bii tey sëriñ Moussa Niang yàlla na ko yàlla gën a yàggal fekkee na ko sëriñ Champs bu Cissé moom itam fekkee na ko ak ñeneen mu wax ñu boppam ci làmmiñu boppam ne yëg naa ne penc ma la ma doon tere taxawal ngeen ma ca ba mu dañ waaye ñi nga xam ne ñooy war a ñoo faral ñu yalwaan ak di sonal nit ñi dañu faa jóge tàbbi ci sama biir kër gi ba am na fi ñoo xam ne danañu ñëw ci biir kër gi ñu teral leen seen xol sedd waaye bu ñu génnee ci bunt bi danañ leen fi def loo xam ne dootuñ fi bëggatee dellu si kàddu googu ci làmmiñam lañ ko dégg ñun ñu demoon ca jataay ba ñu ci bari ñu ngi fii waaye sëriñ Moussa Niang fekke woon na ko sëriñ Jean bu Cissé fekke woon na ko ak ñeneen ñu bari lu mel noonu nag moo doxoon ba dellusiwaat ci penc bi am na ci ñoo xam ne njaay mi ñu doon tere ci penc bi dañoo commencé waatoon di dugaat ci biir penc bi kon fukki yëf ak ñett yooyu mooy ñi nga xam ne euh, euh, ak yooyu mooy yi nga xam ne euh, jàpp nañ leen ci penc bi ci biir ñooñu nag am na ci ñoo xam ne dañoo waxtaan ak ñoom xamal leen liy bëggu sëriñ bi ak yi nga xam ne moom lay tere ci penc bi niñ ko war a moytoo bàyyi leen ñu dem waxtaan ak ñoom ci njëkk ak teranga yi nga xam ne dañoo jote itam am na ñoo xam ne jote biir kër la muy soxna soo xam ne dafa jote ak moroomam ci biir këram ba ay tëkkoonte am ci mu daw te seen borom kër nekk mu daw di bañ mel noonu lañ def dañoo woo borom këram fa mu nekk ci biti waxtaan ak moom mu yebal fi koo xam ne ab xaritam la mu ñëw jël si ko yóbbu ko këram waaye ñu defare leen ba nga xam ne jàmm dellusiwaat na ci seen diggante ak yeneen yu ni demee bu fekkente ne ñi nga xam ne dañoo def lu defuwut la moom saa ngoon jotee dañuy woo police ñu ñëw jël leen am na fi ñu fi nekk waa police bu fekkante ne koo xam ne sax jërul mu yandu la ndawul police ngi fi ci saa sa daf koy dal di yóbbu moom su fekkente ne koo xam ne mën na leen la dana fi yandu añ naan lim ndox def yëpp bu ngoonee ñu dajale leen jox jëbbal leen yoon ñu bindal su fekkente ne dongo yi nga xam ne dañ leen di for la wala benn benn nit ñi nga xam ne dañ leen di for te ñu réeroon am na ci ay kër yoo xam ne ñenn yoo xam ne bu ñu fi nekkee ba ngoon jot ci kër yooyu lañ leen di yóbbu teg leen ci condition yu baax dañ fa war a nekkee doo leen xàmmee ak waa kër ga ba ñu dañuy jot kilifa ñu ñëw jël si leen su dee ci wàllu euh, ñooñu nga wax wax naa la léegi nettali naa la léegi li nga xam ne moo amoon ci jamono yi Serigne Saliou ci diggante ak ñoom euh, yaakaar naa Serigne Saliou amul ku ko ëpp yërmande wala ku mën a wax ne moo ko ëpp yërmande ci nit ñi jafe na bopp ndax ñëpp xam nañu yërmandeem waaye yërmande nag dafa dàqonte wut ak nos aw doxin ba kenn bañ a loru kenn bañ a lore waxuñu ne bu kenn yalwaan ca jamono yooyu sax ñun dañu leen dañoo boo jéggee tali bi jàkkaarloo ak jumaa ji foofu dañu leen a bàyyi woon ñu di fi toog waaye nag dafa dem ba ay rax am ci nag mu dem ba ëpp ndax booba xëy na ay benn benn way laago ñoo fa nekkoon waaye dem na ba ñoo xam ne dara jotu leen di ay nit ñoo xam ne mën nañoo liggéey ay góor ak ay jigéen di fi dajaloo ay mag ak i ndaw di kar nit ñi di leen sonal day mujj delluwaat fa nga xam ne fa la nekkoon avant 1995 97 ba nga xam ne ci la ko Serigne Saliou euh, tere woon te loolu soo ko bàyyee mu continuer jafe-jafe bu mel ne ba fi nekkoon lay mujj indiwaat anarchie lay andi loolu moo tax néewuñu leen terewuñu ko yalwaan comme ni ma ko niñ ko waxe woon ba tey bu dee oto yi itam terewuñu oto bu sëf dañoo wax ne su fekkente ne oto yi la nañu génn dugg ci mbedd yi fu ñu fu mën a jëlee seeni client ñu jël ko fa te dem su fekkee oto bu bu demee ne Mbàkke Tuubaa la wala oto yi nga xam ne urbaine la ku tollu fii te am client bu bëgg a wàcc na taxaw mu wàcc mu dem su fi tolloo am ku bëgg a yéeg na taxaw mu yéeg mu dem waaye nag bu mu fi taxaw di woote bu mu fi taxaw di woote di ko def ab garage su fekkente ne ñi nga xam ne dañuy yelwaan la itam booy dugg ci pénc mi am na fa mu yem boo xam ne lépp tere yi foofu la yem yi ci des ñu tollare ko may leen ñu toog foofa ku génne ci penc mi ci mbedd ngay dugg mbedd mooy dugg mu ne buntu mbedd ma bàyyi nañ leen ñu ñu toog fa ku leen fa fekk sarax leen yaakaar naa ne ku am yéene yi saraxe seen ku toog nee di yelwaan sa digganteek moom matul fukki mètre yaakaar naa la lay te lay tee nga dem sarax ko ko xëy na ci yow lay doon waaye du luñ lay tere tere wuñu leen am yelwaan dafa am barab bu ñu leen tere barab ba itam nañ fa daan defee nañ fa doon defee moo indi tere gi te loolu yaakaar naa ñu bari teg nañ ci seen bët fi ñu jógee itam ak fi ñu dem matul fukki mètre dañoo du génnee ci li uuf tali bi dugg ci bunti mbedd yi nga xam ne bala ngaa dugg menn mbedd mën nga leen a romb boo leen am boo amee yéene saraxe mën leen a sarax te yàlla tax ñi nga xam ne nag dañ cee raxoon te mën a dem liggéey waaye nekk fi di sonal nit ñi ba nit bu génnee ci jumaa yi dangay gis koo xam ne day mujj sànq aw xelam daw wuti otoom ñu kar sax ci otoom ba du mën a dem ñooñu nag moom dañ leen fiy ñoo xam ne dañoo sàcc am na ci ñoo xam ne dañoo yor ay ngànnaay lu mel ne ay paaka ak ay dàngam doon tafu ak sàcc ak yu mel noonu. am na ñoo xam ne dañ doon màndi wala ñu yor drogue wala lu ni demee démb sax jàpp nañ fi koo xam ne moom maar détail dafa wax ne dafa rey nit daw ak yeneen yu demee yëf yi xeeti ndëngte yëpp daal lañuy jàpp jamono yi ci ginnaaw am na ñaari samba yoo xam ne jàpp nañ leen ci biir Bakheng ñu doon sàcc boppi euh, euh, pavillon aluminium yi nga xam ne ñoo fa nekk ak lenn ci ay mbàjj yoo xam ne dañu ko lal ci ay barab loolu nag naka jekk daan am daan am itam ci armeel yii euh, xëy na nag na mu siiwee fee euh, siiw daawu ko siiwee léeg-léeg ñi ko seq ñoo ko daan xam waaye mi ngi daan am tey ñi ngi leen daan jàpp itam comme ni leen jàppee nii raw ci xëy na mën naa doon benn yoon ñaar yoon nga raw waaye di ci raw yombul ndax waxtu wu ne ay nit a nga fa te am na ñu nekk ci biir di saytu saytu kooku sax ca lañ leen jàppee euh, li nga wax itam dëgg la doon nañ sàkku ñu yokkal ñu sécurité bi waaye xëy na itam ñu ngi koy séntu ba léegi am na ci loo xam ne ak seegul teewul nag ñun yokk nañ suñu vigilance ak mbooloo ma nga xam ne ñoo fa nekk di gën di saytu dafa nekk waaye nag bu dolli ko it nag ñu jël. waaw xam nga barab bi dafa yàgg am ay jékki-jékki rek gis dara muy génn di dox bu demee ne yi ñu fi barab bi barabu jaamukaay yàlla la te léeg-léeg nga gis koo xam ne day ñëw tourné ab kilibam. yaakaar naa am na ay jamono mas nañu fay dégg ku siiw ci réew mi koo xam ne ab taalibe la sax waaye nag la mu doon def méngoowul ak barab bi jàppante woon nañ fi ay jàppante yoo xam ne bu ngeen bàyyee xel da ngeen ko fàttali ko lu mel noonu nag ginnaaw amoon na fi ba bañ egg ci loola ba ku fi ñëwati di filmer da ngay ñëw tàggoo am na commission communication bu fi nekk mu xam lan ngay def su dee loo xam ne ni lu jub la amul benn problème mën ngaa mën nañ la sax jàppale ci ñi nga bëgg waaye su fekkente ne da ñëw rek di filmer te xamuñu li ngay filmer fu mu jëm ak lu mu doon ak ci loo koy doyee ji mën nañoo jekki-jekki rek su fekkente ne ku ñëw ñu bàyyi la nga def loolu mën nañoo jekki-jekki gis loo xam ne dañuy wër di weddeeka coow te fekk bañ koy def ñu ngi fi woon